jërëjëf soxna Bintu ñoo ngi nuyuwaat bu baax di leen siyaare incha allah tey suñu yëbbal moom dañ koy jëmmale rek ci bis yi nga xamante ne ci lañu toll muy al ayaamul faadila di ay bis yoo xamante ne bis yu am ngëneel la dafa am ay bis yoo xamante ne suñu da koo tànn te bis yooyu doon ñetti fukk bi ci njëkk mooy fukki fan yi nga xamante ne daa mujj ci weeru koor borom bi da ko fonk lool la ko waral mooy daa benn guddi gu nekk foofu muy guddi gu leetul xadr ak fukki fan yoo xamante ne daa nekk ci ci weeru tamxarit loolu tamit suñu borom da koo fonk lool la ko waral mooy yow yawmu ashura waaye fukki fan yi nga xamante ne mooy fukki fanu aj borom bi dafa digle ñu fonk ko li ko waral mooy bis boobu ñuy wax yowmu tarwiya muy juróom-ñetti fan ci aj ak yowmu arafa ak bisu fukkeel ba muy bisu tabaski soxna Bintu fan yii nga xamante ne ci lañu ñu nekk ay fan la yoo xamante ne képp ku ci jaamu yàlla donte benn bis la nga jaamu ci yàlla dafay tolloog koo xamante ne daa woor atum lëm day tollook koo xamante ne guddi gi yépp da koy naafi la waaye day tolloog koo xamante ne daa mel ni ku dundal guddi leetul xadr te leetul xadr wax nañu la guddi la goo xamante ne ku ko dundal alfu la muy junni weer waaye yii bis nag yii guddi ku ko dundal day tolloog koo xamante ne dundal na guddi leetul xadr dafa am bis yonte yàlla mu Muusa alayhi salaam mu ne yàlla man de dama lay ñaan waaye li ma lay ñaan wuyu woo ma damaa bëgg nga tegtal ma benn ñaan goo xamante ne su ma ko ñaanee li ma lay ñaan di nga ko nangu su borom na ko da ngay bàyyi ba yii fan muy fukki fan yi nga xamante ne moo nekk ci aj ngay faral di wax laa ilaha illallah loolu de boo ko waxee man yàlla dinaa faj li nga xamante ne mooy sa aajo mhm. nga xamante ne mooy yonent yàlla Muusa alayhi salaam mu ne yàlla mais kàddu googu ñëpp koy wax muy laa la illallah waaye su borom na ko ñëpp koy wax waaw waaye nag ñu waxee ko ci yii bis du bokk xanaa xamoon ne képp ku jëloon juróom-ñaari asamaan yi nga teg ko ci balance jël juróom-ñaari suuf yi teg ko ca balance nit wax laa ilaha illallah nga teg ko ca balance ci weer wii ci bis yii nee nag kàddu googu day wat mboolem juróom-ñaari asamaan ak mbooleem juróom-ñaari suuf mu ne ko li ma lay dénk mooy ku ko man donte benn bis la soxna Bintu nit ki naka woor ci weer yii ci bis yii nga xamante ne mooy fukki fan yi nga xamante ne mooy fukki fanu aj képp ku ko def yàlla dina defal fukki mbir ci tënk bis njëkk mooy yàlla day def sa dund gi day am barke te dund gu am barke lu am solo la ñaareel bi su dafay def aziyaada fi maalihi sa alal yàlla da koy dolli tey boo amoon nangam benn fan nga woor ko ci weer wi yàlla day dolliwaat li nga xamante ne mooy sa alal ñetteel gi yàlla di def al ifz fi riyaalihi sa njaboot yàlla da koy wattu yàlla da koy sàmm yàlla da koy aar waaye mboolem say bàkkaar yi nga xamante ne danga nga koo defoon suñu boroom da koy effacé ci fukki fan yi nga xamante ne mooy fukki fan aj sa yiw suñu borom da koy ful boo defee benn yàlla da koy fël ba daf ba ko sa lim boo xamante ne kenn du ko xam mm-hmm. waaye sooy génn àdduna sukuraat yàlla dafay woyefal li nga xamante ne mooy ci sukuraat bu la dugalee ci biir bàmmeel yàlla dafay leeral li nga xamante ne mooy sa bàmmeel waaye ëllëg bu ñuy peese say jëf bu ñu tegee sa balance yàlla dafay diisal li nga xamante ne mooy sa balance waaye da ngay mucc ci mbooleem li nga xamante ne mooy ay jafe-jafe waaye fukkeel bi. yàlla dafay yëkkati li nga xamante ne mooy sa daraja te loolu nag suñu borom dina ko defal ab jaam ci koo xamante ne fukki fan yii muy fukki muy fukki fan aj jàpp na ko mhm. moo xam da cee woor wala mu yokk ci ak jaamu yàlla wala mu saraxa ci wala mu def ci lu baax kon fukki yooyu ñoo ngi ñaan suñu borom mu bañ ñoo ump te yàlla defal ñu feex ci fukki fan yi mhm. yàlla defal ñu ak ngëneel ba liñ ci yéene ñu am ci li nga xamante ne mooy kawe njort wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.